est-ce que fit ba fa bi fi nekkoon. bu fit mën daan jugee fit day nekk ci nit. loolu mënu fay jugee man tuddee ma sama bopp boo fit Lamine Samba moo jékki-jékki tuddee ma ko waaw maa ngi koy nuyu moom te sama drapeau na ma ko jox nag maag booy bawal Lamine Samba sama drapeau nag ma ko jox maag booy bawal maa ngi ciy jug nag sama drapo di nga ma ko jox de di nga ma ko jox. lool attends loolu la demee woon. maag booy da dañoo bëre mu tee drapeau bi ne dinaa la indil Fass Mbao jamono waaw jamono boobu mu ngi wal fajiri yaa ngi dégg mais gisuma drapeau ba léegi te moom moo ngi nekk ci lu ko neex mais damaa jugu mais fu ma ko gis nag dina ma jox sama drapeau dinaa ko wax si njëkk ak teraanga nag Lamine Samba maa la nuyu à passage quoi sama drapeau fexeel lijjantil ma ko ndax drapeau symbole la quoi. waaw maa daan booy bawal firnde baa ngi nii. waaw lu wér yow wax nga lépp. tubaab de tampon la bëgg ak signature. billaahi instant il faut taxaw ne maa daan booy bawal lal moo koy firndeel na ma drapeau bi. ñu feete ko sax bu dee feete ci néeg sax ñu feete ko ndax loolu yàgg na. yaa ko moom sax nag. waaw maa ko moom Lamine Samba jox ma sama drapeau.